am na tey euh, ci procès bi. Euh, procès bi verdict bi boo koo dégloo di nga ci am euh, peut-être benn loo xam ne naqar li doon ci réew mi di nga ci gis également peut-être que li ñu doon ruumandaat dafa mel ni moom la moom la ñu confirmé naqar bi mooy boo ñëwee ci réew bu mel ni Sénégal ñu ne démocratie la. moom benn ministre boo xam ne. dafa yore ay responsabilité ci ministère boobu ñu fay ruumanaat ay scandale ci scandale yooyu benn euh, homme politique wax ci ne ki épinglé nañ ko loolu déjà jarul ñuy dem procès d'abord ensuite bu ñuy même bu ñuy dem procès li lal li ko lal mooy euh, est-ce que am na ay vingt-neuf milliards yu ñu luubal wala luubaluñ ko xaalis bu bari boobu ñu nga xam ne ay contribuables sénégalais ñoo ko def te mu waroon jëriñ ay emploi ay sénégalais mu yàqu loolu lañ doon def focus loolu moo waroon yitte procureur ak juge yi d'abord parce que bu fekkee ne laal na ci ba pare mu am procès impunité mooy lalu ci suuf impunité boo xam ne c'est lié à un scandale financier énorme donc loolu mooy première forme de d'injustice et d'impunité et d'indignation mooy li mu wax léegi mooy naqar bi indignation bi mooy loolu mooy mënuñu euh, euh, ay affaires yi milliards ñu di ko wax ñu di ko rumandaat au lieu que ñu régler ko ba mu leer nañ ñu xool fan la responsabilité ñu teg seen tànk ba pare di indi beneen euh, procès ci affaire boo xam ne ay diffamation la ci loolu loolu mooy première forme source d'indignation boo xam ne mooy habité sénégalais yu bari beneen bi nag mooy effectivement Cheikh wax na ko léegi gis nañu mille 2012 bi léegi. Mhm. président Macky Sall réussir na éliminer ñaari candidat ci ay euh, artifice politico juridique yoo xam ne dafa dafa leer nañ maa ngi koy fàttali boo bay ñëwee en deux 2012 Macky Sall falu mu ne dafay traque mal bien des traque des biens mal acquis ñëpp dañ de woon demande sociale la ñëpp pratiquement dañu tàj woon parce que yaakaar nañ ne am na xaalis boo xam ne luubal nañ ko te bu ko traqué dina dellusi ci askan bi ñëpp am ci yaakaar bi ñu demee ba ci cappaandal bi li ñu gis mooy pratiquement kenn la ñu traqué donc xel yi ñaaw mu mel ni dafa mel ni mhm. Karim Wade dong lañ singale te liñ ko singale du woon du pour xaalis bi c'était pour que éliminer ko mhm. muy lu ñaaw ñaaw ñaaw xelu ñëpp naqar ñëpp naqarlu ko ñu ñëw dem ci xalifa Sall ñu ne rapport inspecteur général inspecteur général rapport boobu newul nañ ko stop mais nañu xoolaat affaire yi ñu ne bon puisque rapport boobu muy prétexte di alibi ñu éliminer ko mm. ñépp ñaawlu ko donc ñaar yooyu lancer alerte ñépp ne puisque ñaar yi am na fi plus jamais loolu dootu fi am malheureusement ñu gis ne Ousmane Sonko bi mu jógee dafa mel ni ci tànk yooyu Macky Sall woon ba éliminer Karim Wade éliminé Khalifa Sall ci la taxawaat ut ay artifices juridico-politiques yoo xam ne bon euh, vraiment kenn rafetlu ko rafetul ci deru démocratie rafetul ci deru nit ku ñuul sax rafetul ci deru Afrique te rafetul sax ci deri Macky Sall donc loolu bu fekkee ne verdict bi ñëw na bañ ne éligibilité jib na non éligibilité da ciy découlé loolu vraiment dañ koy euh, dénoncer fortement parce que du ñu nangu Macky Sall nekk président ñu fal ko jox ko lépp pendant ans mu réussir éliminer ñetti candidats yoo xam ne teg ko fenn dul ci ay ay euh, yoo xam ne vraiment xel nangu ko donc li ñuy wax mooy alors bu ñu leen déggee souvent Macky Sall moom mooy ñëw c'est lui qui qui a éliminé euh, cette séparation des pouvoirs bi nga xam ne dañu koy wax vous pensez que elle est inexistante aujourd'hui au Sénégal au Sénégal on sait que euh, je crois qu'en 2000. Euh, 14 ou ñun au M23 on avait dit la forme moderne la dictature dictature yu bees nu muy joxe mooy kenn yore pouvoir yëpp dictature noonu lay noonu lay fësalee léegi dictature yu bees noonu lay fësale mooy maanaam ki yore exécutif bi euh, dominer législatif bi dominer judiciaire bi te loolu c'est le ressenti de sénégalais maanaam sénégalais yi li ñu xalaat ñu bëree bëri en tout cas ci gën a bëri mhm. c'est li ñu jàpp mooy euh, justice amul indépendance euh, assemblée aussi amul indépendance parce que assemblée presque caisse de résonance la ñu ngi wax affaire majorité mécanique donc justice bi li ñu gis mooy en tout cas am na ay magistrats yu bëri yoo xam ne fi ñu toog lii nguur gi bëgg la def donc loolu moom mooy ressenti sénégal yi te ressenti boobu dafa am lu ko lal lu ko lu ko ay firnde yoo xam ne moo tax ñu bare bare jàpp ne Sénégal euh, justice bi amul indépendance mm. donc ñun suñu taxawaay tey mooy naxaru li xew suñu taxawaay tey mooy puisque ñun jàppoon nañ ne loolu mën na am que ñu éliminer ay candidats parce que gis nañ fi parrainage bi également kooku au fait de Macky Sall la parrainage bi tax na mu éliminer yu bëri donc euh, col électoral bi ne fi. Mm-hmm. donc léegi ay procès yoo xam ne pratiquement ñëpp dañu naan ay procès bidon la ay procès yooyu am fi ak ay verdict yoo xam ne dañu naan si commandité loolu bu amee. Euh, li ñuy def mooy jéem a xool naka la ñuy defee face parce que loolu la ko prévoir woon. Mhm. prévoir woon nañu ne Macky Sall. et juste après le verdict a pas de réunion amul dara la ñu fa waxtaanee. non ñun non on est serein c'est-à-dire qu'on tout préparé on sait que on savait que lii mën na am donc puisque mun na am ñun dañu am suñu plan d'action bu leer am suñu principe bu leer boo xam ne moo ñu boole maanaam Macky Sall mënu fi am ñettali mandat maanaam Macky Sall ut ay artifices juridico-politiques ba éliminer ay donc ñun on va faire face dañu am face parce que euh, mbooloo mooy doole parce que dëgg muy mujj te dëgg alal yàlla te gëm nañu ne Sénégalais yi euh, dinañu jàpp ci dëgg euh, ba pare jàppoo ànd mànkoo def benn say wan Macky ne vraiment dañ ko joxoon réew mi ci jàmm dañ bëgg mu bàyyi ko ci jàmm bëgguñu mu éliminer ay candidats yoo xam ne ci ay yoo xam ne jaru ko donc loolu moom euh, sereinement la ñuy accueillir verdict bi te déroule nag suñu plan d'action ndànk-ndànk. Mm-hmm. ba fa nga xam ne dañ cappaandal ba mooy leer nañu ne Macky Sall ñun li ñu bëgg ci moom dañ ko am ci moom parce que sénégalais ñun lañu àndal parce que sénégalais ay góor lañu ay nit ñu am jom lañu te duñu bàyyi nafeq di bàyyi euh, njublang di bàyyi ñàkk ngor di sax ci réew mi. Ah, alors ci ci code électoral bi Adama euh, euh, aujourd'hui lan mooy les conséquences peut-être politiques de ce verdict. waaw verdict bi conséquences yi moom je pense que depuis cinq ñu ngi koy wax que bu ñu gisee L vingt bi ak L bi dafa leer mais notamment aussi L cinquante sept bi xam nga Sénégal daam lu mu baaxoo quand même. Sénégal dañoo baaxoo que code électoral saa ñu koy tëgg ñu nekk ci champ politique bi même société civile dañuy daje. Hmm. waxtaan déggoo mu doon un mu doon loo xamante ni c'est un consensus je dis souvent que ah, la matière électorale ne relève pas des prérogatives du chef de l'État c'est dafa di loo xamante ni ñëpp ko bokk gannaaw ñëpp ko bokk kon kon diisoo day baax ba ñu déggoo ci ana lu ñuy def na lu ñu dul def mais malheureusement quest qui s'est passé. bi ñu condamné Karim Meïssa Wade je crois c'était en 2015 Khalifa Sall en 2017 je ne sais plus donc en réalité ni Karim ni Khalifa ne perdaient par leur droit d'être candidat en 2024 code électoral bi dàqu leen woon mhm. li leen dàqoon ci élection yi moo doon euh, l'article 57 bi ñu modifié en juillet 2018 loolu moo leen dàq ci élection yi ci lañ jël le qualificatif électeur mhm. yokk ko ci ginnaaw citoyen pour être candidat il faut être citoyen électeur maanaam pour inscrire sur les listes donc vu que léegi mënuñu inscrire sur les listes parce que article boobu dugal nañu ko ci mais loolu moo taxoon mënuñu nekk candidat parce que au Sénégal avant 2018 dafa amoon ñaari distinction yu am la qualité d'électeur ak la qualité de candidature autrement dit mënoon nga nekk électeur te doo nekk candidat mhm. tout comme mënoon nga nekk candidat te doo nekk électeur mais 2018 pour ñu éliminer Karim ak Khalifa ci la boole boolee ñaaw yooyu mu doon benn bi ñu ñëwee nag léegi en deux mille vingt et moo indi coow li xam nga je souvent que kon kii bii nii lii bu amoon en deux mille vingt du am benn tension ça allait passer même inaperçu benn tension du ko am bu fekkoon te ni c'était un procès boo xamante ni c'était en deux mille vingt et un deux mille vingt deux mille dix neuf et autres parce que c'est en deux mille vingt et un maintenant la ñu changé waat le code électoral dugal ci que. pour maanaam lorsqu'on est condamné à une peine eh, supérieure égale à, à six mois supposons avec sursis pour tout autre délit tout autre délit boobu moom la ñu yokk en 2021 amu ci woon mais loolu nag fa la coow li xam nga coow li mooy lan élection présidentielle c'est une chose très sérieuse et c'est la chose je peux dire la plus sérieuse même dans une république notamment une république comme les nôtres ndax ñun comme ni mu ko waxee léegi monsieur Mbodj ñun dañoo am ay république yoo xamante ni chef de l'état bi daanaka moom mooy polariser toutes les attentions parce que aussi moom moo am également de fait tous les pouvoirs tous les pouvoirs et là je reprends ce que Ousmane Tanor avait dit à cet effet-là mais aussi ce que Idrissa Seck avait dit que le président il vampirise toutes les autres institutions il a le droit de vie et de mort sur ses aussi ce que président Abdoulaye Wade avait bi coow Sonko bi en 2021 commencé dafa bindoon benn lettre. Mhm. pour apporter son soutien à à à Ousmane Sonko. il nous avait dit également que parfois le juge sénégalais il ne reçoit même pas d'instruction mais il essaie d'imaginer ce qui peut plaire au chef. c'est l'a dit quoi gis nga coow li yëpp mooy article yooyu moo ñu indil tension parce que xam nga élection présidentielle nu amee solo. dañuy tànn ki nga xamante ni moom dong ak benn nit dong mooy incarner une institution l'institution présidentielle est la seule institution